da nga yokk luminosité ah. bi. waaw. waaw. aso mu ngi noonu ginnaaw bi nga xam ne nii jël nañu image yooyu biig ci guddi nga xam ne partout dans le monde entier ñu ngi dëkk ci ñu ngi dugg ci biir dëkk bi nga xam ne moom mooy Guinée Bissau euh, tey nag bi ñu ngi fii nga xam ne taxaw nag fii nga gis nga xam ne moom mooy yoon yi pour dem fa muy daj dëpp gi ndax nee nañ boo fi duggee léegi-léegi mën nga am loolu nga xam ne moom mooy jaan ju mag jooju fekk la fi waaye lépp la nga xam ne aussi tamit sa soxla la boo ko ci ñaanee suñu borom mën na la ko saafaral sottalal la ko mu nekk kon dëkk bu yéeme yàlla ah, dëkku Cheikh Souleymane Bayo xam ne nii dëkk bu danam Cheikh Mbacke eh, ci waxtaan nee jaar na fi daan na sax di bindanteeg ay lettre kii nga xam ne moom mooy borom dëkk bi waaye li ci mën da am ba baam rek mooy topp leen ñu ndax nee naa la danañ dem ci beneen teen bi nga xam ne nii moom la ñuy wax Njambe Ndiaye waaye danañ dem ci beneen teen ba nga xam ne nii moom la ñuy wax eh, Yankoba moom la ñuy wax eh, yàlla jàkkaarloog pèlerin yi nga xam ne ñuy dugg ak a génn muy la nga xam ne nag VFTV moo leen ko andil VFTV partout dans le monde yi tey mu ngi fi nga xam ne moom mooy Guinée Bissau gis nga ko pèlerin yaa noonu ñu ngi dugg ak a génn mu nekk la nga xam ne nag lu kéemaane la waaye lu doy waar waaye képp ku fi ñëw rek benn xaritu médecin ba nga xam ne nii sax mu ngi jóge fii ba Maroc ñu naan ko Ibrahima xam naa mu ngi noonu Ibrahima moom yëkkati am nga li la andi gis nga ne lii kat wax dëgg yàlla bu fekkee. ñu ngi leen di sant leen gërëm euh, ci invitation bi alors di wax ne fii effectivement dëkk xéwal la jotoon nañ fi ñëw pour consulter nit yi xool wér gu yaram nit yi en même temps xool xéwal yi fi nekk te am na ay teen yi nga xam ne ay misaal la fi nekk yaakaar naa ñu nekk ci dëkk bi ñoo leen ko gën a mën a expliquer mais macha allah liñ fi wax gis nañ ko donc dëkk bu yaatu la dëkk jàmm la dëkk alxuraan jàmm fi am euh, daanaka ay waliwu tamit judd nañ fi. Mm-hmm. Euh, voilà dëkk la bu nga xam ne lépp luy alxuraan daal lañ fi def donc euh, voilà am ay juróomi yi nga xam ne boo fi demee. Mm-hmm. da nga fay sangu ñaan fa sa xewal yàlla yàlla yàlla ubbil la. Mm-hmm. alors ñun assisté nañ ki loolu donc man surtout côté wérgu yaram moom fi andi woon. ànd ak tamit benn benn imam bu fi nekk. Euh, je pense que c'est important voilà c'est important <laughs> mu mel ni yaa ngi gis nga démb sax sañ sa yi nit ñi dañ koy denc ndax nee naa la boo ne cëpp ci dëkk bi sa xel li muy njëkk a dem mooy dem jubal ci teen yi ba tax nga gis nga gis nga ko boo xoolee sax ñu ngi noonu di wax di biir moo ne la kon li ngay gis nii fii dëkk bi nga xam ne moom mooy bigi mooy dëkk bi nga xam ni dëkk bu barkeel la dëkk bu tedd la moom bigi nii gis nga suma yaay booy ñu ngi noonu di dem ci teen yi lañ jëm noonu noonu lañ koy jàppoo noonu lañ koy jàppoo ba keroog ñu waaj a ñu bisiwaat waaye bàyyil xel nag fépp fu rek wala xeet bu mu mën di doon ci àdduna rek jàpp na tey Touba bàyyi bas ak baaramaa mi danam Cheikh Mbacke ah am lan teg borom dëkk bi kóllëre ba ñuy sax bindante ay lettre kon nag barke am naa yaakaar bu ne la mu ngi ci biir dëkk bi Ibrahima loolu kenn du ko weddi VFtv ca kaw ca kanam. ñun ñun sangu ñu dem gunge la rek. ñu dem gunge la. Ah, ñii ñemewuñu ah, कैमरा वीडियो लाल को हां yang hijau lah ah hai kila reko asa bala tambol al bala do ko la mul do ko la al mm. ma bol abdullah non am ka ñent lan ñew na sax do la ma ci dal ni ci waaleykum salaam. waaleykum salaam. ay bii jë. jël leen kii mi ngi nëbbatu jël leen kii. fi nga dëkk. yéen fi ngeen dëkk. gan lañ quoi calmant lañ jógee quoi. ah ñun Sénégal. ah waaw. Sénégal ngeen jógee. Sénégal ak calmant benn la.

Thank you. génnee ci teen yi mu ngi noonu yanqo boobu mu ngi wax sama jëne cameraman yi del ma wax del ma wax Bijini te bàyyi Bijini ma ne ko waaye Bijini mooy dëkk bi nga xam ne mooy dëkk bu tedd bi bi ñu ci teen yi nag ah Cheikh teen yooyu ah nan la demee ak lan moo waral nit ñi loolu mu wàccee rek li njëkk def rek mooy jubal ci teen yooyu waaw asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu waa VFtv di leen sant di leen gërëm di leen masaw coon ci déplacement parce que Sénégal jine sori na Mhm. daanaka lépp lay faj mhm. yàlla nag moo xam mhm. munoon na doomu aadama léegi lii mais kenn mën da ñaan te yàlla nanguwut mais yàlla day nangu ñaanu jinne ba parce dafa am jaan ju fa nekk du benn jaan sax ay jaan ay jaani jaan de ay ñaan si soo fa ñëwee tom nag sa aajo war a faju soo ko gisee sa aajo faju boo sangoo ci ndox mi sa aajo faju bu dee da nga feebar ay korte wala lu mënti doon teen bi moom macha allah teen yi day faj lu ne ci doomu aadama faj boo jógee ci jinne boo demee parce que ñeenti teen yëpp ñoo bokk ni ñuy xellee mais bu ñu nee teen du teen yi ñuy jukki genre dex gis leen ndox mi yéen gisal ngeen seen bopp ci xeer lay xel di na fi sëriñ su bari jaar nañ fi même Cheikh Ibrahima Fall jaar na ci dëkk bii nii dëgg loolu waaw parce boo nee jinne rek mhm. mën na laal ak famille Cheikh Ibrahima Fall mhm. ndeysaan waaw parce que fii boo xoolee dëkk bi ay rek a fi nekk dëgg la ay murid rek a fi nekk waaw amul beneen day faj dëgg la nga jóge Kammangu dem Ñampa Njaay dëgg la nga jóge Ñampa Njaay dem Kanjaaraal yi mais ndox yi nag bu ñu laalante. waaw ñetti teen yi am na ci ndox yoo xam ne du ñu laalante. ban moo ci dul laal moromam bu ci dul laal moromam. bu ci ba. waaw dina laal ak ndox yi. loolu moom amut sikki saaka ku ko essayé def ko nga gis ko léegi léegi. jaan yi nit aussi bu ñu leen déggee jaan yi duñ màtti kenn. Mhm. duñ def kenn dara. Mhm. waaw mën nga leen a gis ñëw raay leen jaaree parce que mooy tuuru dëkk bi. te teen bi bu tilimee jaan ji mooy génn ci biir teen bi ñëw ci waa dëkk bi dëgg la buñ ko gisee dinañ sangu ci la ñuy togg eh, xam naa sobee eh, xam naa Cheikh Bayo bu ñuy wax wax jaar-jaaru dëkk bi waaye xam naa bu ñuy wax mbaax gi nga xam ne moom moo nekk ci dëkk bi duñ fi jógee ndax firnde la mu ngi nii yaa ngi ba da gis cage bi ma jàkkaar lool bi am naa yaakaar fi la ñuy jàng alxuraan te dëkk bu naan Cheikh eh, maam Cheikh borom Touba jaar na fi sëñ Touba jaar na fi Babul Mouridina jaar na fi na fi ndax li ko firndeel gis nga case bi nga xam ne saa yu nu xëyee ci la ñuy jàng alxuraan muy dëkku diine di dëkku Cheikh Souleymane Bayo eh, xam naa nag sama xarit di ne caméraman yi ba day topp dugg ci biir kër gi rek di jël gars yi par benn benn yow moom xam naa ne du maasona Cap Mansona boo gisee ñi si jinne bi saawa yëpp ba ci kër geeg fu nekk fi leen jàngee fii mooy daara ju mag bi bii mooy ju njëkk ci jinne bi saawa ci biir bi jiini fii mooy daara ji ñi gen nekk suñu ginnaaw bii mhm. foo dem nag ci biir dëkk yi ci biir kër yi am na fa. ko mm-hmm. changé te borom kër gi nee na bu ko kenn toj dañ koy peinture rek. parce que ñun bëgg nañ ko toj comme ñeneen ñi niñ def tojee seen i bos ne mooy Bijini di dëkk bi nga xam ne moom la yàlla barkeeleel muy ay nit yi nga xam ne ci biir dëkk am na juróom-ñaar fukki junni at ak juróom-ñaar fukk ak ren ci juróom-ñeent yoo xamante ni kenn mësu ko yokk mais duñ toj tabax bi ta tabax bi ban la lépp ñun fekkewuñu ko suñuy maama maamaate ko fekk mhm. te jumaa ji heure boo ñëwee bu màggal di waaj a jub si mhm. nga fekk lu bees loo xamante ne yéen bi ngeen di ñu topp bu ñu bàyyi ndax des na guddi gi te guddi gi wax dëgg yàlla di nga gis sañse ndax démb gis nga fi otage yi nga xam ne eh, eh, ñi fi wàcc def nañ ko léegi nag guddi gi des na tey muy guddi gi nga xam ne moom mooy guddi gi màggal gi ba tax na am na ci ñi nga xam ne ñi sax ñu ngi ci biir kër yi dana leen fekk fan nekk ku ci mel ni xalifa bi dinañ dox bi nekk fi leen di defee màggal noonu Cheikh ngi nii sama wet fa ñu fas yéene laaj suñu yaay booy nga xam ne nag ñoom ñoo fi ñëw waaye damay jox Cheikh Cheikh laaj leen ndax xam naa am yaakaar ne bépp langue rek mu ngi fi te Cheikh na langue yooyu Cheikh ay woo salaamaaleykum naa mbéy ñu ne itoo di ma dafa jóge ci beneen village ñëw fi mm. a daal insaan jaa inshallah allah bu ren mo dakh bu daw tassak ana day gina dakh gina jina ba kolonin la te ñinin kala muna ya sabu gina ba ha nde mbarin e ko dal mi dande mba ma mu barat la kam fa da bi par ma jar lo ndé nde wu ta kam bi mo ngi jugé gambi la yo nek mais rek chaque ana day déplacer wu ñoo sét ñoo ci magal bi quoi nana nak vraiment lim gis magal bi ran macha nana magal ran bi mom Côte d'Ivoire la gëna xam quoi parce Babayo waaw nga defal ñu ñaan rek bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi اللهم ñu ngi ci biir kër gi génn gu ñu fi ñu ngi fi nga xam ne bi ni waaye ñu fekk sama papa Toumani Gassama fii nga xam ne ah, fi la ñuy defaree bernde yi war a ñi nga xam ne ñoom la rey papa Toumani maa ngi lay jaar delloo naa la ziar yéen waa jaay màggal ñu gis ngeen ci sonne ñu gis ni ngeen ci nekkee di berndeel gan yi waaye lu ko waral de mooy mooy borom bés bi rek waaw borom bés bés bi boromam lay tollal ndeysaan waaw ndax euh, ki sànc fii mm-hmm. ki ko xam wala xam ay jaloreem ak ak li def mm-hmm. li mu def ci euh, euh, jamono ji mm-hmm. ak fu ñu fu ñu àgg nii nii nii nii. donc euh, lépp lu fi def dañ ko lu mu bëri bëri bëri wala lu mu réer réer moom. dañ koy xeeb dañ koy xeeb dañ koy xeeb dañ koy xeeb. waaw ndaxte borom bés bi moo ko moo moo moo moo moo moo ci toll. bés du tuuti borom lay tollool ba tax na ku ne xam ne Cheikh Souleymane Bayo ni ba ci yéen seen biir ñoom ndax nee naa la ku ci wax rek da ngay xam ne kii sédd na kóllëre kon boo doon ñaax ñi nga xam ne ñun ñooy pëlëre askan wi ñi nga xam ne ñoo fi daje fi mës a ñëw ñi ku fi ñëw euh, euh, ci biir dëkk bi xool dëkk bi ñoo méngoo ndaxte mm. fii nii mm. waa ji liggéey na liggéey bu rëy rëy rëy te li fi bàyyi aussi mm-hmm. ah macha allah ñu ngi koy gis te ki fi ñëw teg ci bët waaw waaw ki fi ñëw teg ci bët ndaxte fii mm-hmm. boo euh, taw def rigol ak yooyu tout ça bu tawee rek day disparaître ci suuf sama kay loolu yéeme na de waaw loolu loolu yéeme de salte fii nii waaw boo ko wéddee aussi ngay def mbalit maanaam nga sotti ko bërëb fa fekk boo ko defaatee aussi pareillement mais boo ko ñettalee ah man na la dara mën dal moo tax fii euh, dëkk bi gis ko dox ngeen fu liñ ci am mooy barke rek. barke rek li nga wax. Euh, seen xam-xam yi. ndeysaan ndeysaan ndeysaan voilà donc comme maam Cheikh. Mhm. ak yooyu tout ça là. Mhm. ak ñun ñeneen ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. et moom lu mu fi liggéey moom macha allah. macha allah wallaay Papa Toumane Gassama liggéey fu mu jaar rek dafay laa di feeñ ba tax na su ko jënee caméraman. ñu tase ay màggali màggal kenn bañ a manqué incha allah rabbi am nañu kontaan dama ak mbégte ci Papa Toumane yàlla yàlla guddal. to mo woni fono ngero ayo fono nde ñiwo ɓe damal ndum momondi yo ko soso foni wa rahmatullahi taala wa barakatuhu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen sant di leen gërëm bi ñu leen sante ba pare rek Eh, dañ leen xamal ne dañoo kontaan rek daan nañu kontaan lu ñu am ñu mësuñu ko am suñ suñu si ziyaare bi nga xam ne commissaire ci boppam moom délégation ñu jógee depuis Bafata ñu ñëw ba fii moo liggéeykat policier ñu nekk fii ëpp na loo xam ne daan lañ loolu lañ daan jox kon sant daan nañ sant yàlla waaye ren sant nañ bu baax mbaalo ak premier ministre am ak ministre yi ak ministres yi yëpp ak policiers yëpp surtout koo xam tey moo moo mooy responsabilité Ressondi Bafouta yëpp mu ngi ni commissaire bi mu ngi ni toog nii ak délégation depuis démb la ñu ñëw. ñëw fii Guinée Bissau daan nañ sonn ci yoon bi trop trop trop trop ay kayit ay li lu ne da ngay fay mais ren moom kenn fayul laaj ñu kenn dërëm te commissaire bi loolu la garante garanté ñun en tant que moom mu ngi ci Ressondi Bafouta bii. ci ci yoon bi loolu moom garanté nañ ni loolu. assalamu ah, aleykum warahmatullahi taala wabarakatu mbaadiwnu ŋaali konto ŋaali ziyare kontondiro kola nta safuno alhamdulillahi rabbil alamin aroto kono safo ñinan kuwol fenti i commencéta sawla nin telemina jan ka bata bake sawlan ka bata bake ba ñinan man bata birin kayto frata comme sero ma ñinema bararen ba fata beera atelon comme sero to ñine bisankol ka comme saa ɗo atele mo woti ñimma amle délégation ina rijande konni aliyake comme sero fomuyala bi nin kala fo bitan mbaro koto anayita mbaro koto bala bidanata ñinita mum fola

alsana on ñama san sadi afam bakar fana sara mul asi presente nin diam beda e fransa fono senegalel saje dunia be saka sa alhamdulillah ba kunnan ko rahmatullahi taala wa barakatuh bona ba fata gaba bar sembre min matta region la wo mo dolati nga garanti o min kale ka fa binaja ate garanti o ta kabri lumina kaito bota ja futata police a manke ñindi ka faya moole wilindi kata frontiére taate fa taata ye je ka biriŋ kambaji frontiére jam mhm. a ye bee taamana fo gaabu frontiére a maŋ fi mooye woto faŋole loŋ ndu soko kaito ko nyini mhm. ka a ye ko garanti le comme ali fa ye a je o ñaamiŋ mhm. nduŋ hanniŋ sayo be keela a be keeloo ñaa tomu colonel mustapha bandiaye Muhammadu Mustafa Njai nindo isana malo moti kamara kunda golo moti <laughs> kunu ngo ngo presentali ya jana wolo marta region e akwa fana kontanta bakele okay o asafali ali barka bak norsi bi kumveti akwa te kaito risi bilum min kafo ila fita ainaja inti kumbilano para mandar polícia para segurar bari fulanjaŋo ye a la moolu kiina jaŋ ka naa doo la to dano data data kaŋo ciga i ka luŋo fo luŋo na polisiolu ñaŋ nanaa la jaŋ no menda polisi e o luŋo sita ñiŋ kama ko tuusi kana moo soto i dunta ñaameŋ frontiére to problema maŋ problema probléme fanaŋ ke jaŋ kuwoŋ a nati ñaama ke wo ñaama kairo si la se sayida se entrada c'est sayida tout pesede ali be ate a contante tanya ñiŋ la de vez en quand kada bayerinyi mukurete komini ng'ala siyo wara e, sango sanga kakele boye sana non pe annonce kels non mi si facile differente ako <laughs> ko be che sei di essere differente maniera di migliora entrare e sei da gente nte atela na to munyine ta ai akana misali komi sango do la nalbi na ko ka kenyami nyina mm. ta seruntat tudu kegena kena pilideus padeus pegrano kada ako o kamara be ko kun den dane la ala taala bulu ala ma e, ala ya mutani amin be no sulu kila kuno pegana ako bayrim be la jana masuma ben star ko tudu yim tapi ako bari ko be e tara balu ko mi mo be ka dane ala bulanun simaya ala ma ala yo dimbe amin kila kuno no kuno misira kuma so to jinti pay organize danko kuwo organisation ñaama e taku mini ɓe commission kono kuwo ñanna ɓorla ñaami ka eten ka tamandi o ñaama dow nin faani oɓe keɗaɗami a fo police o de ño sabati evita problema sko ako ka ni mana bi asin kere ba mas ako e nin ala kiɗitala police la karola mhm. ko asi moon naata ñaama ali kon condane rin ko ɓe bannale kon continene fo mo ni e ma e inshallah ono ala yaali ma sambana alama ala yaali ñiima murundi bayriba dritu na seko arama are ali ma murundi a makabe odwar kala kinke kama na kudi a tera a sabu familia kudi sabu kama mo ni da familo da arama ara yo kembe kila kila kama ako eh, mbebo le dani da arama ara yo amina manolo proprietario de jardis pidef de no binna so pa meta abertura ok abril ano riba ako bari iyo dula jama ya kaito ki kufaye mabe mm -hmm. iyo ako anatapura alinaye nyoje ifuta alifafa na maya ya konto mm -hmm. weje ile nan alifata atafengo tala fita kamuru poso ma komin dali tala nyami ni fano ke ta moriese si kaba okay ako ni una banda moriese police la kusense ile ako police ol la janno kono anin kabinse yilla si nyoma ko kunni nasa kembulu bata ko de kai nyongi len fan wa VFTV parce que liggéey bi nga xam daal rafet na gannaaw yàlla ak yonant yeneen tax mu rafet kon ñu ngi leen remercier di leen sant di leen gërëm tina commissaire bi ak i colonel bi ñu ngi koy sant di ko gërëm di leen jaajëfal nag di leen ñaax ta ngeen jàpp tan sunu rakk bi Moustapha Karamo Bayo waa WF TV parce que liggéeyam rafet na wolof dañu ne ku am kudd doo lakk mooy sunu kudd bi mais nit loo koy liggéeyloo boo bëgg mu gën a sawar foog nga ñëw nga ñaax ko ñaax boobu moom la ñu doon wax pour di leen kon jërë ngeen jëf je